génn leen yow ko kan moo yore réew bëgg jàmm quoi sa réew am jàmm. nga naan est-ce nga naan génn leen ngeen opposé wu quoi léegi kuy opposé wu ci looy opposé wu. yow ñun xeexuñu ñu def te mu baax na bu nekk ñu toog fi boo ko dem bi ngeen di mayee euh, bi ngeen di formaliser secteur informel d'accord ma boo ko dem bi mu toogee fii ne am na cour bu ñu teg boo xam ne bu ñu paree ba installé lan la Farba Ngom yore l'État attention de yow mi taxawoon nga fi fii aañam xaw ma fan di taxaw di wax. farba loo xam ne sa vidéo boobu. wuy ma yow yow yow. yow may ma yow yaa njëkk a xam ne farba jubut. ay lan la farba yaa njëkk a wax jubadi farba lan la farba comme yow ci yow laa ko njëkk a dégg. saa li boobu da da da dégg man la man damaa laajte. boobu damaa laajte ah, boobu dafa am projet Prodac wan waxuma ci farba ngoom kese Cheikh Amar bi nga bokkal Cheikh Amar bi nga bokkal biñ euh, bokk ma ak yow Touba dama ko impe dama ko interpellé ci vidéo dafa am ay machines yu Cheikh Amar yóbbu woon ca gagné ko ci appel d'offre yóbbu ko ca commune ba baaxul ma ne lu tax Sénégal te projet bii lu ko tax a aborté parce que dafa amoon 4000 d'emplois président Macky Sall ne mbaan dafa am coowul suuf comme li am bëkki démb maatam ci problème mu fii ñu fi ñu woon def tool yi ba waa dëkk bi ne kenn exploité phosphate ba fa la woon def forcé Prodac bi dañoo bañoon Prodac mais dama ne Farba ñuy wax ne dem Farba def na du nekk nañ ci président Macky Sall ci pouvoir salaire u député laa wax dañ ko séddale sëriñ daar euh, dañ ko séddale dañ koy jël député ji bu jigéen amul compte assemblée salaire u député bi dañ koy jël séddale ko ci ñetti dëkk 500000 yi étudiants yi lañ koy renforcer seen bourse ah, salaire maire am feneen salaire maire dañ koy dajale ba mat 12 ans ñu bañ ba mat 1 an ñu jël ko séddale ko imaam yi ak sëriñ daara yi di jàngale ci daara parce que mi ngi koy am fenn da koo saa bi ngay wax dama la déglu bi ma lay wax dama la jël un milliard jox ko sëñ Muntaxa fii ci Masaalikul Jinaan pourquoi pas Farba Ngom nekk promoteur immobilier promoteur terrain moom mënta am alali boppam. ça veut dire que dama ne yàq der gi ñu nekkee ci réew mi lañ war a bàyyi dama ne un politicien mën nañ ne Ousmane Sonko wala keneen ak keneen ñu ne politicien milliardaire euh, fonctionnaire milliardaire ñu ne nan la def ba nekk milliardaire mais un opérateur économique. wax naa ko fii keroog nee naa ko man am naa terrain. bu opérateur économique bu lëkkaloo ki politicien. ñoom ñaar bu àndee di sàcc. loo jël nga nëbbal ko ko. saa man gis nga yi ngay wax nii man nee naa la doo ma sa dégg may la ma ne la.

waaw ne damay tabax monument mais xaalis bi du ma ko lebbi fenn waaw réew mi laa koy defaree waaw aéroport bi dama koy tuxal waaw suuf si ëppoon ci bi Sénégal la ko moom dama koy jaay defaree ko monument renaissance la boobu yaa ngi woon PDS est-ce que nag ma euh, yaa ngi woon mais loolu yow. non non non non booba xam nga. non booba nekkuma PDS. bàyyi non non da nga maa laaj da maa interpellé. non non da nga maa interpellé. bàyyi ba ma ma eggale. waaw ne non de en tant que président. bu ma yeggale wul. biñ daanee Ablaye Wade législative yi ci topp laa njëkk a voté xam parce que injustice biñ nekkoon commencé di ko teg euh, waa PDS man 2012 laa après élection 2012. Mhm. yi ci topp législative 2012. Mhm. laa njëkk a voté ci sama àdduna. sama deuxième vote mi ngi nekk 2014 ci maire yi sama troisième vote mi ngi nekk référendum sama quatrième vote mi ngi nekkaat 2017 ma voté laat Wade sama cinquième vote première vote ci présidentielle de la république. Ousmane Sonko moo njëkk am sama carte Diomaye moo ko ñaareelaat. man bi boobu ngay PDS Wade neex na ma comme ni mais yooyu noonu ay pratique yu ma bañ la même la ko waa PDS te man gis nga xaaral fii gis nga bu waa Pastef amoon ko luubal léegi yàlla bu muy Ousmane Sonko wala muy président Diomaye ni ma ko waxee nii laa koy waxee mais du ma yow de ah, dafa jaar ci suñu assemblée

monument de la renaissance. Mhm. bi ko Ablaye Wade bëggee jël defar ko. dafa yooyu yëpp ay tappale ci la bokk jox ko farbaak jox keneen ak keneen ku mu mën a doon nañ ko jox ab ko mën a jox ay tappale la daan ma nanga yooyu nga am yow te du jël xaalisu uh, bitim réew lépp ko defal ko ci ma ne mu jël aéroport bi wàññi ko ma ne loolu mooy may sa xarit xaalis état Sénégal amoon na lu tabax monument de la renaissance day dara wala ma nangam ak nangam. loolu ay tappale la bu dee Ablaye Adak. li ma mën a wax mooy émission bi day yàqu mais la ma nangam nangam. bàyyil ah, xoolal li ma wax mënoo ma ko tey développé. pratique bi defal Macky Faye. moom lañ defal Farba rek benn la. ban wan nga ma ne dañoo benn la rek. mooy fexe pour may la xaalis est que Macky yu xaalis boobu dafa ñëw rek mu dem ci moom est que amul keneen ku encaissé non. non comme boobu ngeen di bokk moo tax nga toog ay góor. d' accord amul benn problème arrêté de mentir di toog. wallaay fenuma wallaay fenuma wallaay fenuma fenal mbakk yu fay Abdoulaye Wade di fenal Farba Ngom. wallaay fenuma wallaay fenuma wallaay xam nga ne xam xam nga ne man. da ngay fen xam nga ne arrêté waaye de yow. man xam nga ne jënd man jomb na maa fen wallaay jomb na maa fen Ousmane Sonko ci moom. yooyu yëpp du problème man yow. yow de xam nga man arrêté waaye nee naa li ma bëgg wax naa ko dama ne monument la renaissance man wakaam laa dëkk dama ne Ablaye Wade daf ne dafa bëgg a tabax monument la renaissance waaye dina ko defar parce que day dof renaissance africaine africaine yëpp nawloo ko mu ne damay wàññi suufu aéroport parce que boobu dafa am coow ñun fi ñu dëkk dañu fa woon a jëlee Ablaye Wade nañu léegi dama fiy jëlee aéroport bi ñun ñoo waroon a jóge foofu mu ne dama fiy jëlee aéroport bi mais mu jaay ko 14 milliards jox ko mbakk yu fay boobu tabaxee ko monument la renaissance ne ñu nag 70 pour cent ñiy liggéey ci monument bi yéen doomi Wakaam yi lay doon. ma ne doon budget bu Sénégal am 3000 milliards. di nga tëj am plus de 2000 milliards. jël 14 boo jëlee loolu. ah jox ko Macky yu valeur loolu mu jox la 14 loolu ñaata milliards la loolu ak càcc la même bu ko Ablaye defee loolu noonu ak jubadi la ay tappale la xam nga man aw yi ngay am ne gis nga man yàlla xam na ne non non ah, non non maa leen yées aw ma problème mais du tee fu ñu waxee fu ñu waxee ku ko dégg danañ xam ne naanal ndox. amul benn problème yow yaay naan ndox <laughs> ndox moo tax ma jox la léegi pour ñu avancé jox ko mu naan ndox. li ngay def nii laa lay wax jox ko mu naan ndox. non non non yow yow yow. dëgg gi ma bëgg a wax sénégalais ñu xam nga taxaw ne ma problème non xam nga ne fenuma. wallaay xam nga ne fenuma. xam nga ne état Sénégal. ñi waaye bu ñu amee doom te jubuñ nag waaye dama ne loolu ku jub du ko def yow mi topp ci fenkat nag non xoolal bu la neexee nga qualifié ko loolu. mais mais yow xam nga ne. yéen ñi sax non non. ba 89 personnes dee ci. xam nga xam nga yow Ousmane Sonko ku topp moom amoo crédibilité sans débat léegi mënoo toog def sa fi ma laal muy metti falaay falaay laalaay léegi léegi c'est bon laal waaw maa ngi jégalu ñu laalu metti falaay laalaay ñu ngi jégalu quand même loolu du problème non non fen bu saaga de saagawu ma de loolu du problème fen day dara wax na ma ne damay fen te fenuma ñun ñaar am na ko ciy fen parce que kii na ma ne damay fen te man wóor na ma ne fenuma waaw d' accord léegi billaay fenuma léegi pour avancer. un peu euh, pour ñu avancer. man jomb naa fen man cedd laa yéex nañu door quand donc bu ñu toppee kii bi rek du ñu mën a avancer ci liñ bëgg a dem donc dañuy dem ci limogeage Abdoulaye Daouda jàlloo laatu ñuy jeexal ak Cheikh Omar Diagne bi. Mhm. ak ki nga xam moom moo di euh, Aminata Mbengue Ndiaye am na ñuy wax ni décret la boo xam ne du décret bu normal bu anormal la ci ñi koy wax nag ci opposition bi la ñu bokk. Mhm. est loolu tam. Euh, nekkul ab njuumte ci njiital réew mi. li ñu tas euh, euh, décret bi leen limogé. bi leen limogé dafa anormal. Abdoulaye Daouda Diallo ku mu wuutu Idriss Seck. Mhm. Idriss ku mu wuutu Aminata Touré. Mhm. Aminata ku mu wuutu Aminata Tall. Mhm. <laughs> léegi yow nga ne ma décret bi ah, loolu de xanaa kii du ci du ci ci waroon man moom yaakaar naa ne. non loolu moom du ci waroon. ah wax nañu wax leneen. bu dee décret bi nommé. <laughs> dëgg dëgg ah, boobu moom yéen a koy wax am nañu koy ko mu commentaire bi libre na quoi. Mm. pour commenter lu ko neex. ah, ah dafa juum. waaw ma voilà kii commentaire. Mm-hmm. libre na commentaire lu ko neex. président Macky Sall daf doon nommé ñooñu par décret. Mm-hmm. di leen dindi par décret. président Bassirou Diomaye Faye ñëw na dindi leen par décret président Bassirou Diomaye Faye fii ak 2029 moom moo am prérogative nommé civil et militaire loolu am na droit nommé ko lan lañ doon wax bu ne woon dafa signé décret. Mhm. tas ko loolu boobaa dañ ne jàll na loo xam ne yoon may ko ko mais li muy def nii yoon may ne ko ci waaw man kam jàpp naa ne ba ba may dégg ba xam-xam bu dugg ci biir constat parce que Macky Sall mënu ko woon di def. Mhm. mu jaay yoon ne la la man daal damaa jàpp ne nomination moom. Ah. Bassirou Diomaye Faye la war dindi na da man jëlee na leen fa man li may wax mooy bu ko neexee sax bu subaa mu teg fa koo xam ne bokk na Pastef bu boobaa du ma ko critiquer sama yoon newu ci parce que moom moo am droit nommé mm. ni mu changé gouverneur yëpp di changé préfecture yi mm. di changé lépp loolu moom dooleem la moom la ko may fii ak 2029 li bu dee yàlla nga koy may muy dund mm-hmm. moom moo koy defal kon damay jàpp ne sama amis des affaires yi ak waa ñi nga xam nga xool li nga xam ne ki ngay analyser loo ko contre contre mm-hmm. yoon may may loo ko contre contre la ko yoon may na nga xam ne lii la ko la ko la ko la ko la ko la ko la ko la la ko la ko yoon may. d'accord ñu avancé jeexal xanaa ñu may ma rek parce que am na temps bu ma jot a ñàkk ci ginnaaw tuuti ñu may ma ko ma continue ma jeexal ak Cheikh Oumar Diagne bi ñun 22h lañ jëm. loolu moom bu ma ko defee rek. ma ne keroog fii lañ ñëw toogaat 30 minutes duñ ko fi defee. voilà am na émission boo xam ne c'est déjà prêt moom dafa war a jàll. léegi sa wolof lu jëm ci Cheikh Oumar Diagne. itam wax ji ba ngi bëgg a bari ci moom ay e, mbiram te itam kenn ku ci nekk yaa ngi jug di ci wax ñi naan dafa saaga e, le roi du Maroc ñi naan nangam ak nangam donc e, ñu ñu donc Cheikh Omar itam kaawam nekk na kaa boo xam mu ngi bëgg a critique quand même ci Sénégal. bon man nag li ma ci jàngat rek mooy suñu jëfi tey mooy suñu jëwu ëllëg. Mhm. donte ne am na ci loo xam ne ba mu koy wax yàgg na mais man saa wolof mi nga xam ne ku ma xam xam maa Cheikh Omar. mu doon ko ku ma bëgg koo xam ne lu mu xewle daan naa bokk ci ñu fay njëkk. Mm-hmm. mais bi ma dégloo quand même li mu wax ci sëñ bi. Mm-hmm. même bu dee lu yàgg la. am naa lu ma naqari trop. maanaam damay xalaat su fekkoon y' trois ans laa ko xam ban taxawaay laay am ak moom après. Mm-hmm. parce que xam nga benn murit bu la tooñ wala ku ne murit la tooñ la fekk la sa live wala mu tooñ la wala mu woo la ak lu mën a am. nga koy tontu mooy li ma wax sànq rek wolof nee na loo may say boñ. musal ci say soppe nga yamale ko ci moom mais nga àgg ba ci seexul xaddim waa ji la wax ne la def ko sa xol bi nga naan maamam sama xol wala du ma defuma ko sama xol di wane naan il est loin d'être un créature meilleure loin d'être mooy ki yées rek ki yées waaw mais Omar du moromam dëgg-dëgg même bu dee lu yàgg la du moromam du màppam doom ba mu koy diir mbagg naan li mujj a wax naan see seen ay kii lu ñu war a parfaire la c'est ameliorable kat moo koy ameliore yow di wax ay waxu dem ba naan ay nit ñaa ngi dem planète Mars loolu nga xam ne béaba la ay nit ñi jàng nañ ko bu yàgg ba xam ko xam nañu ne soo nekkee fenn julli sax mën nga koo def ci fi la lënt ci la beneen bi mooy boo duggoon tey cim ndox ba réer booy julli nooy def fi nga jàpp ne mooy penku fa ngay jàpp ne mooy penku mm-hmm. boo demoon ci beneen plate planète moo xam Jupiter wala Mars wala foo fu mu la mën a fekk wala Lune fu mu la mën a fekk. Hmm. mais yow déjà technologie bi la yóbbu foofu wala ne la technologie boobu war ne fii terre la hmm. lan mooy xew léegi dàkkal terre di wax yoo xam ne ay waxu picc googlise ay affaire ñëw taxaw di wax maam du maanaam tey xam-xam lu ñu war a mën a lëñbët la lu ci nekk ak yooyu waaye nag ki bind ne kiraamati xattu yaddi maanaam li ma bind mooy samay kéemtaan mhm. ah war ngaa xam ne yàlla jagleel na ko kéemtaan ko en tout cas daal li nga ciy wax mooy sëñ Tuubaa du moromam du moromam du màmpandoom daf ma naqari sax li mu waxoon li mu jotoon wax ci fële ah Mouhamed euh, Assane Dëgg Mouhamed Cissé ak yooyu yëpp déggoon naa ko mais bii moom masuma ko dégg bi ma ko déggee naqari na sama xol trop trop trop ba man sëñ Tuubaa du ko yegg naa foo xam ne duma ko caaxaane man bu ma amee complexe kenn yaakaar naa ne sëñ Touba la maanaam sëñ Cheikh daal Rahman aw ma keneen complexe keneen ci àdduna fii sëñ Touba gisuma ko yonent bi laay wax suñ borom man yàlla laa gëm yonent bi laa gëm-gëmum nangul wóolu sëñ Touba it moom laa wóolu ci lim ma indil mu doy ma kon bu la nit waxee loolu wala nit ñëw wax la banaan la ay 3 millions de bi mais boo koy tontu lu ci am ay sama sëriñ benn taalibeem am na vingt millions mel ni genre compétition la wala yu demee noonu maanaam bases yoo xam ne benn waaye bu la woo xamoo fu mu jëm parce que yow li nga am statut bi nga yore kooku toll fa soo génnee wax ak moom tey wala nga def naka su dul noonu yàq pas-pasi nit ñi. beneen bi nag mooy bu dee kaawu sëñ bu sa Dieng ak moom dama jàpp ne sëñ Modou Boussa Dieng ko tooñ am na droit porter ko plainte ki nga porter nag. sañ naa dem wut lépp lu koy défendre est-ce que du loolu moo yóbbu mbir mi ba ci waa Maroc. Mm-hmm. te buñ ko déggee du leen neex. Mm-hmm. beneen bi mooy mu am benn poste boo xam ne da nga ko occupé muy affaires généraux mm-hmm. fañ ko teg mënoon naa bañ a am lante sax ak Touba wala kenn wala nangam lettre bi ñu ngi ko ak adressé secrétaire présidence muy sëñ bi Samba xaj na moom moo war a joxe oto yi wala yi demee noonu xaj na. mais dama jàpp ne ci hôtel yi xaj na du moom nga daal di wax ne rationalisa rationalisation ak yooyu man nañ ko nangu ah. mais yi la précédé wax yi la précédé nga mosoon ko wax ci yoon woowu man naa tax loo ca wax ñu jàpp ne waxi bañ la sa passé daf lay dab. mais du tey it ma wax ne communauté mouride man dama jàpp ne gàcce la ci ñuy dem di sàkku ci état pour hôtel wala hébergement loolu ak foo ko mën tudd rek mm-hmm. loolu lay daal teg soo ko jëlee ci li sëñ Touba waxoon ci yoon wi mille depuis 1926 bi ñu amee yoon euh, yéenay euh, tabax jumaay tubaa sëñ Touba mm-hmm. tubaab bi daf ci bëggoon a participer muy état sëñ bi bañ am na ci ñoo xam ne ñi jege bañ googu daf leen a jaaxal ak yooyu sëñ bi waxtaan ci ak ñoom maam Thierno Ibra Faati ñëw jox ko cent vingt 128 mille ak yeneen teraanga ci la digal frais yi ñu barkeelu ci ku ko man soo amee lu mat cent quarante yooyu cent quarante yi dal nga a joxe lu ko ëpp di joxe ba mu mat cinq millions cinq millions non cinq millions la booba cinq millions la mille neuf cent vingt six hmm. xam nga lu mu leen wax lu ngeen di defati hmm. defee leen ko nii sëñ Saaliw. lii sax sëñ Saaliw sëñ Muntaxa da cee jël mesure. non sëñ Saaliw sax la non après laay wax non waxuma. mais euh, lii sax ginnaaw bi mu amee. waaw waaw non mais ba mu amagut laay wax. sëñ Saaliw 2007 la dem wuy ji boromam mais après 2000 dama xamul 2004 la xaw ma 2002 ban la ci mooy bi ñuy waaj songu marché Ocass. Mm-hmm. travaux marché Ocass gis nga ni ñu ko defaree tale yooyu ak yooyu. Mm-hmm. daf ne ko duñ la sant lu dul lii état warlul dëkk. dëkk muy tale yu nit ñi di jaar di ndox mm-hmm. ndox mees di naan. courant bu ñuy niitoo raglu yees di fajoo maam hôpital. leneen lu dul lii ñoo koy defal suñu bopp. kon nga dégg ci kon li fi sëñ Saliou bàyyi woon te lépp lu fi sëñ Saliou bàyyi ñu ne tradition la dem nañ ba ci école yi tëje sax ñuy koy latoo naan sëñ Saliou moo tëjoon école te fekk na tëjul école yi mm-hmm. dafa am ay classes yu mu tëj dafa am benn IA boo xam ne moo nekkoon Mbàkke yokkaat ay classe supplémentaire te to tàgguwut sëñ Saliou mu wax leen ne bala ñuy wax dara nañ ko jox caabi yi bi ko joxee caabi yi mu toog waxaatut ak ñoom mm-hmm. Daar Rahman gi ma dëkk ñaari classe moo fa amoon ñaari classe yeñ yañ ci dolli woon ba nëga ni hmm. daara alxuraan lañ ko def pourtant daara raxmaan dolli waat nañ fa six hmm. classes ak yeneen dëkk ak yo kon problème boobu dèjà sëñ Saale waxul woon ñu bañ a école ki parce que am na école yu mu fa fekk hmm. am na école yu fa am waaye nag li wóor mooy wax na Ablaye ne ko duñ la sant lu dul lii kon dem di sàkku ci état mu lay jox ay fu say gan dal du sàkk du sàkk ci yoon rawatina enveloppe bi matul 10 million xaj na sax lii mbirum tànki kanam la xaj na dafa war a jeex moo tax Sénégal dugg beneen air yu mel nii di am pour ñu dox doxe fi yaakaar naa bu ñu ci dematee beneen bi mooy parfal Fall bu amee boutique hôpital Seexul Xaddim xam nga matériel yu bëri yu nekkoon Dantec fa lañ ko yóbbu. Mhm. Sénégalais yu bari bari na lu ñuy bëgg a faju Touba la ñu dem di ko faju mais Pape Fall am na projet pour tabax benn immeuble dañ ko saboote mhm. bañ mu tabax ko fa bëgg ko jëmee kaw. mais yëg naa ko am na ñeneen ñu ko yëg l'occasion la tey pour ma wax ko. fàtt ko fépp. bul pour. pour tabax ko ci booru hôpital pour ku am gan am malade boo demee foofu mën a luyee foofu di fa dal ba keroog ngay nekk mu nekk kii parce que nit ñi ci cour yi la ñuy tëdd voilà ci cour ak yu demee noonu maanaam dafa am ay nit ñoo xam ne yi ak yooyu dafa am nit ñoo xam ne dañu nekk ci wet bu nekk yu bëri maa ak Dakar gi sax man naa am ñu fi jóge dem mais daf xam nga dafa am ñoo xam ne wet goo dem ci côté gouvernement ak ci hmm. côté ci foo dem fekk fa ay sabotekat yuy laaj seen part loolu dafa war a jeex. amoon na ci même kii. voilà euh, Massalikul Jinaan. kon jeex na. ak yu ñuy wax nii ak yeneen yu ñuy wax dafa war gis nga ñi nga xam ne tey ñoo setoo